asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk groupe Arrahman ñoo ngi dénk suñu bopp ragal yàlla dina ko dénk di baalu ak ñëpp di jégalu ñëpp alhamdulilah ñu fas yéene dellu si waat suñu si suñu programme fas yéene ci dalal Cheikhouna Mouhamad Alamine Diop si thème bii nga xam ne moom la tàmbale woon tey mu war a nekk ñaareelu dars muy ngéneelu xam-xam charia. kon mbokk yi ñu teewlu sunu oustaz cheikh mohamad amin diop kon euh, oustaz cheikh mohamad amin diop tafadal bismillah assalamualeykum warahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وأجمعين ينبوكي نيتي غروبيب الرحمة دلاني الله سبحانه وتعالى مدفل نيو التوفيق دفل لينكو دليل الشيخ محمد من فيكسي بنتبي di jéggalu ci tardement bi yàlla nañu defal tawfiq defal leen kon xam naa incha allah ñu tàmbali waxtaan bi tey nag ñu ngi wax ci li nga xamante ni moom mooy importance bi nga xamante ni xam-xam am na ko rawatina xam xam sharia bi ngi tax ñuy wax ndax jotaay wees waxoon nañ ci ngëneelu xam-xam yi nga xamante ni lay jural ki nga xamante ni mooy doomu aadama waaye fii ci àdduna ak fële ak fële ci àllaaxira la ci nekk ci ay yiw tey nag ñuy wax ci importance li nga xamante ni mooy xam-xam bu fekkee temps bi des na tuuti mën nañ jëlaal yeneen masaayil yoo xamante ni yeneen njëriñ la insha allahu taala kon li ci njëkk mbokk yi rek mooy li nga xamante ni mooy xam-xamu sharia importance am wax dëgg yàlla kenn mënu koo waxtaane ci benn jotaay waaye nañ ci tudd yi nga xamante ni yu jàppandi la bokk na ci loolu mooy ummal islamia xeetu lislaam wax dëgg yàlla soxla bi ñu am ci xam-xam ak importance am soxla boobu amee wuñ ko ci lekk ak naan ak li nga xamante ni sax mooy nelaw parce que lekk ak naan moom mën nga ko def benn yoon wala ñaari yoon ci li nga xam mooy journée bi li nga xamante ni rek moom nga lan moom nga soxla sa biir moom la soxla ni ki noonu tamit nelaw li nga xamante ni moom la sa yaram soxla ci pour nga mën a am ak noppalukaay waaye lii di xam-xam déedéet xam-xam da koo soxla toute la journée ci waxtu bu nekk parce que lépp looy def rek nit ki faaw mu laaj ci lan moo ci position lan moo ci position charia bépp mbir booy def ci àdduna sax lay wax faaw nga laaj lii la ci sharia wax jënd ak nga wax faaw nga xam lan la ci sharia wax wàllu jëflante faaw nga xam lan la ci sharia wax ba bëggoon jëflante say mbokk jullit wala say ay ñoo xamante ne yéen dëkk say dëkkandoor waaye ay chrétien lañ faaw nga xam lan la ci lislaam wax nit tey bu deewoon ah euh, nga bëgg koo taxawee faaw nga xam lan la ci lislaam wax boo bëggoon julli faaw nga xam lan la ci lislaam wax lekk ak naan bi ngay def sax faaw nga xam lan la ci lislaam wax ak nan la ko jàngalee kon moo tax alimaam ahmad rahimahullahu taala doon wax ni annaasu ila al ilmi ahwaju minhum ila al taami wa sharab mooy nit ñi li ñu soxlaa xam-xam ak aajo biñ ci am moo raw fuuf aajo biñ am ci li nga xamante ne mooy mooy lekk ak naan mu ni fa rajul yaxtaaju ila al taami wa sharab maratan aw marratain mu ni ki nga xamante ni mooy nit ki dafa soxla lekk ak naan benn yoon wala ñaari yoon ci journée bi waaye nag nee na wa xaajatuhu ila al ilm بعدد انفاسه الله اكبر واي نانا بو فكيه ليغا خامتاني موم موي خام خام نين سوخلا موي كوم نيغا سوخلا ني غاي نويه كون نيك ابن قيم دي لير لي سي مدارج السالكين كون داني غيس ني فوف خام خام امبورطانس ام واخ دغ يالا كين مونو كين مام كين مونو كو ديتاي parce que dafa bari motax lepp li ngay def ci journée bi wala sax yow dundu doom adam bi ngay def yépp yow doom adam sa dundu sa dund bi keroog bi ngay judd ba keroog ngay génn àdduna dangay soxla xam-xam booy nelaw yaa ngi soxla lan la ci sharia jàngal naka nga war a nelawee ban côté ngay tëddee yan ñaan nga war a jàng boo yeewoo lan nga war a wax boo xëyee yan azkaar nga war a def booy génn sa lan nga ban tudd yàlla nga war a def booy añ loo war a wax façon lekk bi dagan ak bi daganul loolu lépp xam-xam xam-xamu sharia nag moo tax ñëw xam-xamu àdduna moom beneen affaire la mais xam-xamu sharia bi lañu wax kon importance am moom li nga xamante ne mooy xam-xam kenn mënu koo détaillé ci benn jotaay moo tax imam ahmad wax jooju wax mooy nit ñi li ñu soxlaa xam-xam soxlaawuñ ko lekk ak naan parce lekk naan benn yoon wala wala nga nelaw sa loolu sa yaram soxla waaye xam-xam moom sa vingt-quatre heures yëpp nga ko soxla ba keroog ngay ba keroog ngay génn àdduna ba tey ci li nga xamante ne mooy xam-xam ak importance bi mu am ci ngay mën a xamee borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne jubluwaay bi ñu waxoon mu tax mu bind la fii ci àdduna mooy nga jaamu ko ci ngay mën a xamee ci turam yu rafet yi ak melokaanam yu kawe tey li nga xamante ne mooy ñu bari ci doomu aadama yi li leen réeral mooy ñàkk xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xamu sharia ba tax na tey lépp lu nit wax rek ñu accepté ko ana ñaata nit tey lañ gis ñu taxaw di wax ci yàlla loo xamante ne xamuñ ci dara nit ñi di ko accepté lan moo tax ñu accepté ko moy amuñu xam-xam jàpp na ñoom li ñuy wax dëgg la waaye ki nga xamanteni yàlla defal na ko tawfiq mu am xam-xamu sharia wala xam ci as tuut loo xamante ne lay jaamoo yàlla bu kenn ñëwee bëgg ko defal ndëgg sërëx wala dugal ko ci loo xam naka sudul noonu la du ko nangu danaan la lii xaw ko wala indi li nga xamante ne mooy sa ndëslaay ci li ngay wax moo tax dañuy dénk képp koo xamante ne mi ngi góorgóorlu ci topp yoon yonente bi alayhi salatu wasalaam te sa xam-xam xóotul nga am li nga xamante ne mooy benn arme boo yor mooy qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin allahu akbar ki nga xamante ni xam-xamam xóotul am ndongo daara la buy góorgóorlu di jëfe diineen nit ñëw bëgg ko indi lënt lënt na yor benn arme rek parce que mënu koo mënu koo mënu koo tontu mën ta jaamaaloo ma ba ni ko lii nii nangam ak nangam déedéet te booba mën na koo indil subha lënt lënt mais na yor benn arme mooy qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin li nga wax ni indil ma ci lay te wallahi alladi laa ilaha illa hu ñu bari ci ñoom boo leen waxee loolu gaare nga leen maam rey nga leen ba pare parce que dañuy nekk foofu di euh, naxas naxas duñu xam lu ñuy wax kon diine ji wax dëgg diine lay la lay googu nag yaa ngi koy mën a xamee ci xam-xamu sharia loolu moo tax importance bi nga xamante ne tamit xam-xam am na ko mooy nit ki ci lay mën a xàmmee li nga xamante ne mooy dëgg ak li nga xamante ne moom mooy moom mooy neen mën ci xam turu borom bi subhanahu wa waaye mën ci xam ay melokaanam mën ci xam ay jëfam xam li mu bëgg ak li nga xamante ni moom borom bi subhanahu bëgg ko mën ci xam frontière borom bi subhanahu wa fan la bëgg mu yem fa waaye mën ci xam li nga xamante ni moom mooy moom mooy lan moom mooy li yàlla yoonal loolu noonu boo ko xamee loolu mooy dajaloo nag mujj la defal li nga xamante ni mooy mooy ragal yàlla subhanahu wa taala te loolu jiitu woon nañu wax ci ci ngëneelu borom xam-xam la innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama kon li ñu bëgg wax fii rek mooy xam-xam bokk na ci importance am ci ngay mën a xàmmee borom bi subhanahu wa taala xam li mu bëgg xam li mu bañ boo ko defee nga mën cee jaar comme ni ko borom bi subhanahu wa taala bëggee boo ci jaaree nag moo lay jural li nga xamante ni mooy ngëneel gi nga xamante ni waxoon nañ ci ci jotaay bi passé daanaka du jar ñu ci dellusiwaat kon loolu moo tax borom bi subhanahu wa wax ñu ci alquran ni ki nga xamante ni day demee xam-xam bokkut ak ki nga xamante ni demee xam-xam kon importance bi nga xamante ni xam-xam am na ko ki nga xamante ni am na xam-xam day demee li nga xamante ni moom mooy li yàlla bëgg ci lépp lu muy demee rek day fekk mu nekk loo xamante ni borom bi gërëm na ko parce que ci texte la ko teg alquran ak sunna wuutee ki nga xamante ni moom ci lëndëm lay dox la muy def xamu ci dara ولا مجلبه أي جنت أي نلواك ولا ينمل ديدت نرجعلم نون أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا قسنا نور له لير كي خمد فديون يالا دندل كو دندل بوك مويلان موي كي خمن تاني فور اكزامبل خامل وون دارا نيكون في رير كو دافا ملني كو دي واي بو دوندي نك موي خام خام بي مي جيفانديكو ليپ لو خام نكوي ديفك مو ام سي ليغا خامن تاني موي ديغال الشريعه كون يالا دموني وجعلنا له نورا يمشي به في الناس defal ko leer goo xamante ni da ciy dox ci biir nit ñi waaye est kooku dina yem ak kaman masalu fi zulumaat dina yem ak ki nga xamante ni moom dafa nuur ci ay lëndëm laysa bi xaariji minha te du ci génn wax dëgg yàlla du ñu yem kon ki nga xamante ni mooy demee xam-xam ak kii dul xam-xam mënuñoo yem kon kii demee xam-xam dafa mel ni ku yor ak leer di ko niite waaye kii demee li nga xamante ni mooy safaani mooy réer kooku dafa mel ni ku nekk ci ay lëndëm yoo xamante ni du ci ma a génn kon loolu day jox li nga xamante ne mooy importance bi nga xamante ne xam-xam am na ko moo tax yàlla subhanahu wa taala waxaat ci benn ay confirmé ko ni afaman yalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ama innama yatadakkaru ulul albab waaw li yàlla subhanahu wa taala wàcce ci yonent bi alayhi salaam muy dëgg wax dëgg yàlla loolu yamut ak li nga xamante ni mooy neen parce que ki nga xam dafa nekk ci safaan bi neen dafa mel ni koo xamante ni mooy ki nga xamante ni moo koy doxee dafa mel ni kuy xulli bëtam di xool ki nga xamante ni moo nekk ci safaan dafa mel ni ku gëmmuy bëtam wala gumba goo xamante ni mënta gis kon loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy importance su xam-xam yàlla ñu ko yàlla defal waaw kon bu fekkee li ñu wax euh, leer na ci li nga xamante ni mooy dayoo ak importance bi am kon yow mi nga xamante ne yaay taalibul ilmi yaay sàkku xam-xam na nga góorgóorlu xar sa tànk def ay effort def sacrifice ngir am li nga xamante mooy xam-xam bu leer ndax xam-xam nag wax dëgg kenn du ko jàngantu dañ koy jàng waaw te imam Shafii doon na wax ni man talaba al ilma fal yudaqiq fihi képp ku jàng xam-xam na jàng xam-xam bu wér bu sévère li an laa yadhaba daqiqul ilm bu ko defee wax dëgg yàlla xam-xam bu wér bañ a bañ a naaw tay ñu bari dañuy jàng rek cof fii cof fële mais loolu di joxe xam-xam xam-xam nag faaw nga sonn ci dinañ ñëw incha allah ci jotaay spécial naka la asalafu saalih daan sakku xam xam-xam ak di ci sonn wallahi alazim comme ni ko benn borom xam di waxee abdou karim xudayr mu ne bu fekkul woon al asanit càllal yi ñëw bàyyi ko ci borom xam-xam mu nekk lu wér di wax situation bi nga xamante ne noonu la salaf doon sàkko xam mu ne doo ko doo ko mën a gëm kenn ku nekk daan na la jaral nga tukki dëkk ba dëkk ngir lan confirmé wu ci benn xadis ndax lu wér la war wala wérul allahu akbar kon loolu te jamono yooyu mooy amut xam nit daan tukki dëkk dëkk dem rek laaj ndax yonent bi alayhi salaam moo wax lii balaa ma ko dugal sama téere wala déet ñu ne ah man de dégguma ko wala ñu ne ko ah, moom de ko wax wala yow ndax yaa dégg kii ci saxaaba nangam ak nangam kon effort yoo xamante ni yu rëy rëy na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla seen ko jeexal ci li nga xam mooy sàkku xam-xam ndeysaan ba yàlla nattu leen sax ñu am soxna الإمام النووي رحمه الله تعالى من جيل أدنى بمئة أم كارن سنكا نك خال خم كارن سنكا دولة أقلم تالف في الإسلام رحمه الله الإمام ابن جرير الطبري من يندي ديك بروم تفسير إمام المفسرين تقول جبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نيكي نون الإمام بخاري تميت نيكي نون كون أيين يين يخافن سنجو باري لين amna benn borom xam bu ko bind téere tuddee al ulama alladina atharu al ilma ala zawaj yi nga xamante ne dañoo gënale xam-xamu diine ji ci li nga xamante mooy marié waaye dañoo tolloon jamono joo xamante ne buñ bu marié parce que li nga xamante mooy mariage occupation la responsable la soxna dara am la war ci moom nangam ak nangam kon ñoom tolloon nañ foo xam ne ci xam-xam wax dëgg yàlla amuñoon jot boobu parce que ñu doon jaamaalu ëllu bidaa di leeral diine yàlla ji moo tax seen situation bu la ko tuxalee incha allah dina ci ñëw jotaay spécial salaf nañ lañ doon jàngee li nga xam mooy xam-xam ak nan lañ ci doon sonnee boo comparé suñ dund tey da nga xam ne ñun kon jànguñu dañuy taxawaal rek lañ yàlla jéggal kon yow mi nga xamante ne yaay sax xam na góor góorgóorlu xar sa tànk tubay waaye def ay effort def sacrifice organise sa waxtu dinañ ci ñëw incha allah bu ko defee nga mën a am li nga xamante ne mooy xam-xam bu leer. mbokk yi bokk na ci li nga xamante ne importance su xam-xam mooy ci xam-xam bii nga xamante ne mooy xam-xamu sharia ci la ñuy ci la ñuy aaree lii di l'islam allahu akbar moo tax tey képp koo xamante ni bëgg na taxaw défendre l'islam faaw nag mu am li nga xamante ne mooy xam-xamu sharia qaala allahu qaala rasul nii la ko saxaaba yi daan daan jëfee parce que boo ko amul wax dëgg yàlla nga bëgg a xuus ci débat boo xamante ni par exemple comme tey dañ koy gisee ci réseaux sociaux yi nga xamante ne ay lëntkat ay lëntalkat bari nañ lool ci réseaux sociaux yi yenn ci yenn groupe yi bu fekkee am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla newuñu fa ñoo xamante ne yàlla may na leen as tuut ci xam-xam ñu mën a leeral lënt lënt yi nga xamante moo fa nekk boobaa kon dañ naan euh, lu maam làmbaay dina ñaaw comme ni ñu koy waxee te tey loolu gis nañ ko ci réseaux yi nga xamante ne ay lëntalkat ñoo fay ñëw di jël ay yàlla yi di ko firee ñu leen neex waaw jël waxu borom xam di ko am firee ñu leen neex ñu leen neex lañ ko koy lañ koy firee jël waxu yonente bi alayhi saa yi xamuñu lu wér ak lu wérul di jaxase rek di sotti rek bu ko defee ñi nga xamante ne ñooy taataan na ñoom xàmmewuñ lu baax ak lu bon xàmmewuñ luy dëgg lu du dëgg xàmmewuñ lu leen di wax lu mu waxul xàmmewuñ ay yàlla yi lan lañ koy firé wala déet bu ko defee ñu jàpp ne ñooy borom xam lañ après lan moo ciy juddoo bu ko defee ñu accepté loolu jël ko di ko joxe fekk ñu ngi sànku te xamuñu ko kon loolu lu jar bàyyi xel la te loolu dafa bokk ci mandarga yi mujj jamono mooy yonente bi alayhi salaam la mu waxoon sahih Bukhari muslim mooy ci mandarga mujj jamono yàlla subhanahu wa taala bu yëkkati borom xam-xam du question de yëkkati xam-xam de waaye xam-xam bi nekkoon ci dënn gaa ñoom lay faat bu ko defee ñoo fiy des ittaxada annaasu ruusan juhaala fa suilu fa bi xeyri ilmin fa dallu wa adallu yàlla ci àll ko defee ñi fiy des nag mooy ñi nga xam dañoo réer ñooñu la nit ñi di laaj jàpp ne ñoom ñu yor xam-xam yonent bi mu ñoom dañoo réer ba pare ñoom ñiy laaj waaye dañuy réeralaate te tey loolu gis nañ ko xoolal tey sociaux yi xoolal li nga xamante ne mooy télévision yi xoolal média yi ña toog di wax ñëpp wallahi la ilaha illa borom xam-xam yi xam-xam-xam dëgg buñ toogee xam nañ ñii ni waruñoo wax mais nag malheureusement ñoom ñoo fay nekk di wax leen neex di réeral askan wi te xamuñu la ñuy wax responsable ëllëg yàlla daf koy laaj kon ci xam-xam importance bokk na mooy ci xam-xam kon ci la ñuy aaree li nga xamante ni mooy diine te kon loolu dafa soxla nag jàng boo xamante ni bu xóot la te loolu nag fardu kifaaya la

tey bokk na ci li nga xamante ni mooy importance xam-xam mbokk yi mu nekk lu am solo mooy ci xam-xam bu sell xam-xamu sharia ci la nit ñi di mën a jaamoo yàlla ba am li nga xamante ni mooy mooy stabilité ak li nga xamante ni mooy dund gu naa tànke mu nekk tey loo xamante ni adduna bépp ñoo ko soxla kon ci xam-xam boo xamante ni bu leer ci lañ mën a jaamoo yàlla tey wéetal borom bi subhanahu wa topp ko ci lim bëgg ba mën a am li nga xamante mooy stabilité am tamit li nga xam mooy sécurité waaye am dund gu naataange ndax li jiitu ci li nga xamante ni mooy li war jaam bi wéral ko ci boppam mooy pas-pas pas-pas boobu nag yaa ngi koy xamee la ci xam-xam bu leer boo amul xam-xam nan ngay xamee lu leer ak lu leerul nan ngay xamee lu yàlla bëggul lu yàlla bëgg waaye bu ñëpp amoon xam-xam tey nañ jël rek exemple bañ a sori suñ Sénégal tey société bu ñëpp amoon xam-xam boo xamante ni euh, maam jarul sax ngay xóot ngay xóotal ba nekk mais nañu xam nan la ñuy jaamoo yàlla subhanahu nañu xam dëgg-dëgg kan mooy yàlla jox ko àqam loolu bu ñu ko defoon yàlla subhanahu wa taala moo leen di garantil li nga xamante ne mooy dund gu naataange ak sécurité jarul ñuy sonn fenn moo tax yàlla mu ne alladina amanu lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amnu hum muhtadun ñi gëm yàlla te njaxase wuñ ko njaxase wuñ ko ak li nga xam mooy bokkaale yàlla mu ñoo ñooñ ñooñu am sécurité fii ci àdduna ak àllaaxira yàlla moo leen koy defal duñ am lu ñuy tiit duñ am lu ñuy ragal لكن أنت من يالله وخاتني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبرونني لا يشركون بشيء يعني من يدقنا نيغا خمنتني قمنا يالا منكم وعملوا الصالحات جف جف جرفت نان غي غيم يالا مام لان غا ورا غم بوي غم لان غي غم فاو مو تيغو سي خم خم دا غي غم نون رك سين لا نيهي ديدت wa amilu saalihaat ba pare di jëf-jëf ju rafet kon la nga gëm jëf ju rafet nga mi ngi bàyyikoo ci li nga xamante mooy li nga gëm la nga gëm nag dafa war tegu ci xam-xam kon loolu day wane importance xam-xam rawatina xam-xamu tawxid yàlla mu ne ñuy def loolu gëm yàlla ba pare di jëf-jëf ju rafet teg ko ci alquran ak sunna yàlla mu ne la yastaxlifannahum fi l ard yàlla moo leen di wuutalal ci kaw suuf ñoom ñu bëgg ci kaw suuf am ko ci stabilité yàlla moo leen koy defal comme nim mu ko defalee ñu leen jitu kama staxlafa alladina min qablihim waaye du yam ci loolu rek wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi tabalahum lahum diine bi nga xamanteni yàlla geureumal na leen ko ta moy diine Muhammad diine jim joxon sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam yàlla mu ne moo leen di defal stabilité ak tamkin ak jàppandal ak saxal ci kaw suuf wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amnan gis nga mu changer leen tamit li nga xamante ne mooy tiitaange remplacer leen li nga xamante mooy sécurité kon nekkete àdduna bi réew julli ñi bu ñu bëggee am sécurité am li nga xam mooy dund gu naataange am li nga xamante ne mooy ak naat ba ñëpp di lekk di mën a faj seen i aajo comme ni nga xamante ne lañ ko bëggee yàlla mu ñu lan yaabuduuna nii laa yushrikuuna bi shay'an nañ ma jaamu te bañ maa bokkaaleeg dara loolu nag ñu ngi koy xamee ci li nga xamante mooy xam-xam moo tax xam-xam importance am wax dëgg yàlla euh, ñi bëgg a dund dund gu naataange am sécurité am li nga xamante mooy ak dal stabilité nañu yittewoo xam-xam rawatina xam-xam sharia bokk na tamit mbokk yi ci li nga xamante ni mooy importance xam-xam mooy liy cosaan ci doomu aadama moom mooy lan moom mooy dafa réer kon nag wax dëgg yàlla faaw jàng ngir boppam ci li nga xamante ni mooy mooy melokaan boobu nga xamante melokaan bu buñ ŋàññi la ci sharia yàlla mooy innahu kaana zaluman jahula kon doomu aadama liy cosaan ci moom mooy dafa réer والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كون يعلمون مول الجن سن بيرو ياي وينك لا تعلمون شيئا خمولن در كون نكت دوم آدم ليكي سانتي مو مويرير كون بوكو نتي امبورتانس خم خم نيت كي جانغ غورغولو غير ييكتي ليغا خامتيني موي ريغو سي كاوم ناخ نيك نا لو خامتيني ملوكان بو ني غاني لا غير مو باغا نيك كو خامتيني كو ني غاني لا kon ngir mu yëkkati li nga xamante ne mooy melokaan boobu faaw nag mu jàng mu jàng xam-xam bu ko jàngee rek bokk ci nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla tagg na leen da yëkkati li nga xamante ni mooy seen daraja yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma walladina utul ilma darajaat tuxaloon nañu wax ibnu abbas bi ni yàlla day yëkkati boroom xam-xam yi si ñun ñoom ay darajaat yoo xamante ni yu kawe la kon li am importance rawatina jamono ji ñuy dund nit ki góor góorlu xar tànk tubayam rawatina ci xam-xamu sharia bi nga xamante ne tey yu baaree bari ci doomu aadama yi dëdd nañ ko wuti li nga xamante ne mooy mbirum àdduna ay poñetam na am ci la bokk waaye nag wax dëgg yàlla bul gàttañ sa diine rawatina moo tax bu ñëwee incha allah wax ci atte jàng xam-xam dinañ wax ne ay ay am na ci yoo xam dafa war nga xam ko yi sa wàllu jaamu yàlla yooyu bu ci gàttañ lu mukk faaw nga xam ko julli ngay def saa su nekk rawatina li nga war a fas ci yàlla subhanahu wa ak yeneen ak yeneen am ci yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñii gëstu ci xam-xam bëgg xóot bëgg cee nekk kankoor ñu jàng yooyu yooyu intéressé gu la mais liñ bëgg a wax rek mooy doomu aadama ci sant ci moom mooy réer kon nag faaw mu jàng ngir mën a yëkkati melokaan boobu nga xamante ni bu sharia ngañi la kon incha naa li jeexalee rek mooy ci importance su xam-xam wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ni euh, budul woon moom rek wax dëgg yàlla doyoon na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ñu jàng xam-xam gor gorlu ci hadith bo xamanteni yenen tibbi alayhi salatu wassalam moko wax mu nek hadith ku yeme bo xamanteni ni doomu aadama yi buñ ko deggon rek doyna seuk seuk seuk seuk seuk ñu gor gorlu ci xam-xam moy ban yenen tibbi bim ne ida mata bnu in qata amaluhu illa min salat sadaqatun jariya aw ilmun yuntafau bi aw waladun saalih yaduu lahu allahu akbar mbokk yi ki nga xamanteni comme ni ko ibnu jawzi rahimahullah taala di waxe képp ku bëgg a am dund goo xam day continuer ba faw ba keroog yowmal qiyaam nee na góorgóorlu ci tasaare xam-xam ndax kat li nga xamante ne mooy jariñ doomu aadama ci jëfi boppam bu génne àdduna loo xamante ne moo ko jëfoon waaye bi génne àdduna loolu maam du deñ di ko jariñ ba keroog bisum penc bokk na ci ñett yooyu mooy xam-xam ak li nga xamante ne mooy sadaqa jaariya sadaqa jaariya mooy lan mooy sarax boo def muy continuer aw waladun saalihun yad'u lahu wala doom ju baax joo bàyyi mu lay ñaanal léegi nañ seetantal ci ñett yi sadaqa jaariya mën nga def sarax boo xam day continuer mu dem ba ci yàgg mu faay dootu fa nekk mën nga tabax tee dem ba ci yàgg mu suulu mais feek mi ngi dund rek da nga am toyaab da lay fekk sa bàmmeel ni ki noonu tamit mën nga bàyyi xale benn mu dévier yàlla ñu ci yàlla musal mu jàdd yoon wala mu daal di génn àdduna bu boobaa tamit da nga gis ni yoon woowu day dagg waye xam-xam mom moy lo xamanteni mom nit ñi duñu deñ diko soxla ba kérok aduna tukki mom du fi mësa a jógee allahu akbar motax tax say xoolal ay imam malik ash-shafi'i ahmad ibn hanbal abu hanifa borom xam-xam cheikh islam taymiya al imam bukhari imam muslim ba tay nit ñi ñi ngi leen di tuddu imam nawawi fuñ leen tuddé wax rahimahullah te ñun pourtant jamono jamono ñu téwon ak ñoom suñu digënté ñoom sori na lool mais ba fi mu ne nii ba keroog àdduna di tukki nit ñi siècle bu ñëw rek day soxla dellu seeni téere qaala al buxaari al imam muslim nee na at nee na ibnu maajah nee na al imaamu nasaayi nee na abu daawud di la wax ibnu xuzayma tudd boroom xam-xam yi kon ñoom la nga xamante ni moo leen yóbbee woon lii mooy lu am importance mooy xam-xamu sharia kon da ngay gis xam-xam wax dëgg bu nekk woon lenn ci importance am rek lu dul daf lay defal dund boo xam day continuer ba faawu mooy boo génne àdduna léegi bu ñu xoolee ñett yi comme ni ma ko waxee xam-xam mooy li nga xamante ne tey moom mooy li amoon sens am na boo xam yu génne àdduna amuñu xaalis wax dëgg yàlla amuñu sax jabar bay am doom waaye ànd loolu seen xam-xam ba tey ibnu jarir yi kenn mooy gëstu ci téere tafsir te du ko soxla al imaamu yi kenn mooy gëstu ci wàllu xadiis te du ko soxla ak ñeneen ak ñeneen a ñeneen te amuñu woon li nga xamante ne mooy ay soxna amuñu woon alal waaye seen xam-xam ba tey mi ngi leen di jëriñ moo tax Ibnu Jawzi ku bëgg am dund buy continuer ba faaw na xam-xam ak tasaare ko ndax jamono ju nekk dañ koy soxla tey ana ñi dundoon ak Ibnu Taymiya ana ñi dund ak Imam Nawawi nekkoon ay milliardaire nekkoon ay millionnaire ana ñi dund ak Imam Bukhari kenn xamu leen kenn leen leen gis fenn ñu tudd ci benn téere waaw parce que lu tax loolu mbirum àdduna woon jeex na kon importance bi nga xamante ne bu nekkoon lenn ci xam-xam rek wallahi alladi laa ilaha illa jar na nit ki xar tànk tubayam suba ngoon guddeeg bëccëg muy gëstu ci xam ak tasaare ko mooy dund buy continuer la boo dee ba génn àdduna ida mata ibnu aadama inqataa amaluhu mooy xam-xam bi nga am ñuy wax nag mooy jëf xamante ne yow yaa ko defoon yow la concerné bokku te nga génn ñu lay ñaanal ñaan dina la fekk ku la ñaanal yàlla ñaan gi fekk la mais xam-xam bi nga xamante yaa ko fi tasaare woon boo génn àdduna daf lay fekk li xam ne sa bàmmeel kon wax dëgg yàlla loolu doyoon na sëkk nit ñi góorgóorlu ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy xam-xam moo tax yonent bi sam yàlla digalu ko lenn mu ñaan dolli ko du àdduna du nangam naa mais def na ko qul rabbi zidni ilman kon incha allah foofu la ñu tëjee di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq wallahu taala ala alam en tout cas nañu góorgóorlu bu baax a baax bu ñu bëggee am dund boo xam day continuer même bu ñu demee ba génn àdduna ñu bàyyi fi xam-xam boo xam dañ koy tasaare bu ko defee mu ñuy mu ñuy jariñ alhamdulilah alhamdulilah euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax di jaajëfal mbokk bi nga xam ne moo taxee woon thème bi euh, bu am solo bi mooy euh, sàkku xam-xam ngeen lu xam-xam ci sharia ñu gis ni kon xam-xam day laaj sonn ki jàng ki wut xam-xam mënta yem ak koo xam ne jàngul deful effort pour sa xam-xam a bi kon xam am ko day laaj sacrifice sacrifice boobu nag mooy tax nga dem euh, nga toll fi nga fi nga a toll ci euh, tomb bi li gis ci réseaux sociaux yi ay nit dinañ taxaw di wax ci ay subaha la euh, akay li nga xam ni moom day réeral doomu aadama yi kon pour nga bañ a tabbi ci réeral nit ñi ak sànq doomu aadama yi day laaj nga wuti xam-xam xam-xam boobu nag moom la suñu borom di wax nii dina yëkkati nit daraja gis nañ ni mbokk mi won nañu ci ay tomb léegi kon xam-xam ku koy wut ku ne faw suñu borom yëkkati la xam-xam bu fekkee yëkkati la daraja bu fekkee sell na beneen tomb ci mujj mooy xam-xam bi nga xam ne doomu aadama wut na ko sellal ko tasaare ko ci àdduna bi nit ñi di ci jëriñu kon loolu day nekk benn sarax bi nga xam ne moom dina ko fekk ci bàmmeelam fekk ko ci balance yiwum yom bu yomal xiyaame kon alhamdulilah ñoo ngi jaajëfal mbokk bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko kattan may ko wér ba nga xam ne dars yi di ñëw mu taxawee comme ni ko suñu borom bëggee gërëmal ko ñaanal ko baax euh, ci euh, ñu ñaanal ko baax ci euh, wér gu yaram kon mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah ba suna ah, ba lundi bi di ñëw bu yàlla.